fi yow mi duxooli ci bisub dugg ga ilal madrasat jëm ci école ba ashhuru danaa yëg bi faraxin ci mbégte wan xibaadin akuk ngëbu mooy ak banko mooy ñàkk tàlli daal afraxu danaa bég li mushahadati rifaax yi ngir jàkkaarloog samay camarade wa asatisat yi ak samay jàngalekat tam xabidu dana ngëbu mooy dana ñàkk tàlli nafsi sama bakkan indama u fakkiru saa yu may xalaat fil xamali ci liggéey bi te mooy mbiri njàng mi atazakkaru danaa fàttaliku itam sahara layaali fagu guddi ya mooy ñàkk nelawu guddee waxif sa doroosi ak mokkal bind ya muy leçon yi wa kitaabatal foroodi ak bind dawaar yi bis bi nga xam ci la ñu dugg école moom damay boole mbég ak ñàkk bég maanaam mbég ak ñàkk tàlli li waral mbégte mi moom mooy sama camarade yi nga xam ne gëj na maa gisee ñoom te tey dinaa gisee ñoom ak sama jàngalekat yi nga xam ñoom daan jàngal ma ngi leen a gis te tey dinaa leen gis loolu mooy indi mbégte mi li tax nag sama bakkal ñàkk a taal nag mooy su ma xalaatee njàng mi ni méttee xam ni guddi léeg-léeg doo nelaw bëgg a mokkal sa bind bëgg a bind say dewaar loolu moo ko fàttalikoo nag sama bakkal moom du tàllee ba jàllisee ci at taw sian tam hiid la njëkk a firi la njëkk a def malalu salimin yoqatuk salim minal baqaay ci des ga fil bayti ca kër ga istindaduhu akuk waajam li zahabi ngir dem ilal madrasa loolu lay njëkk a wax laxadd mal la yoqat na ax yi sama mbokk doyal na sëkk sama mbokk mi salimu salim lam yoqat na mooy fatxal kutubi ubbi téere ya wat tadahura akuk manifesté bi annahu ci naka moom yaqaraw mi ngi liir maa la nga xam ne fii haa nekk na ca téere wa raxiba te mu xemem fi dahabi ca dem ga ilal madrasat jëm ci école ba mahma kallafahoo ak lu mu ko mën di togg ci coona al amru mbir ma mbokkam mi salim daraan yor ab téere di ko ubbi mel ne ki wane ne man maa ngi liir li ci téere bi xam naa ko te maa ngi koy liir waaye daa mujj xam ne loolu moom amul benn njëriñ mu mujj nag doyal ci loolu fas yéen doogu ci dem école nag moom lu métti métti daal ak lu école mën di métti rek na dem école waaye daal léegi dooleel ni sëkk ci yor téere yi di ubbi rek mel ne kuy jàng te xamu ci dara léegi daal moom na dugg école rek ndax mën a jàng awalan xoloolul xaami ak sik at ma ak diraas yi mi ko yóg njàng istindaadu salimin ak waajug salim li dahabi ngir dem ak noxoodu ak jógga baakiran ci bu teel dog bi ngay séen dañ ci wax année scolaire bi nga xam ne agsi na ak salim ñuy waaja ngir dem école ak na muy teel a yewoo ci guddi gi ci bu teel a teel wama in atal la yuqamtiku wut wala agsi wut xaadal xaamu mili at xaadal xaamu al madrasiyu mi scolaire mi ko jóg école rek al jadidu mi aji yees wastaxadda te préparé ixwati yi samay mbokk li dahabi ngir dem ilal madrasati jëm ci école ba xataa kaana ba nekk salimun salim fii talixatil murashahina ci njëlbeenu candidat ya li dahabi ñeel dem maxum ànd ak ñoom njàng mi war a jàng ci at mi bi nga xamee lay war naa tàmbali te sama mbokk yépp di waaj ngir dem école Salim daa daal ne moom daal ren moom kenn du ko fi bàyyi faaw rek day bokk ci ñee dem école waaye ren moom kenn du ko fi bàyyi dem école wa fi sabaax yow mi ci subag bis ba almuhayyan yi bari bu ñu ràññeel naxaba jóg na salimun salim baakiran bir mi aji jëlu wa talabate mu sàkku ila walidatihi jëm ci yaayam antu saaxidahoo mu dimbali ko xalaalub si tiyaa bi ci sol yére ya fa sarraxat mu jartal loxo ñel ko chanraho kawaram wa al basat fu te mu solal ko tawbaho yéreem ba al jadida bay aji yees wa hidaahoo ak dàllam wa al barraaxa wa di melxati waa kon maanaam bis bi nga xam ne ci lañ war a ubbi école bi ci lañ war a njëkk a jàng salim daa teel a yow lool daal di wax yaayam ne ko dimbali ma ma sol saa yére yi yaayam daal di koy jartal boppam solal ko yére bu yees ba ak dal yu rafet yooyee awalan nga waxoon léegi taaniyen nag mughadaratul mansili bàyyi ko kër ga moo ci topp ak sayru salimin doxuk salim fi tarixi ci yoon wa faraxoo ak mbégteem bi xamlil mihfasati ci yore kartaabal ba ak nazaraatuhoo ay xoolam ila talaamiis jëm ci elew yi iftixaaruhu akuk damoom bi nafsihi ci boppam xam nga salim moom tey la njëkk dugg école léegi nag dañuy wax ni mu bàyyi ko ci kër ga ak na muy doxee ci yoon wa ak na mu bëggee ci cartable bi nga xam ne moom la yore mu def ay téere ak na muy xoole élèves yi ak na muy pukkare woo ci boppam xinda saaxat ci waxtu ak saabixati bi juróom-ñaareel mooy sept heures tamaaman ne tamaam mooy mat sëkk tawajjax naa dëgmal nanu ilal madrasati jëm ci école ba yasiilu dana dox fii muqaddamatinaa ci sunu kanam salimun salim waxoote moom yaxmilu mi ngi yore mihfadatan kartaabal daxmatan bi aj rëy laxad kaana nekkoon na saa ngi dan di aji texe mooy di aji sedd xol mas roorante ku ñu bégal min nafsihi ci boppam bi setteer jotee mu daal di jóg jëm école salim moom moo nu jiitu fekk na tey la njëkk dem école waaye moo nu jiitu ñun ñëpp noo ngi dox dem waaye moo nu jiitu mu yore cartable bu rëy rëy xolam sedd guy nag ci li mu am tey jii mooy di dem école ni ñëpp demee école loolu daal rëy na fi moom waxu soosan rawante na nag min xamlil mihfasati ci yore cartable ba li annaha ngir naka cartable bi al burhaanu mooy lay wa al awxadu wa gën a wéet mooy wa ñàkk moroom allësi wa nga xam ne yëpp bitu dina saxal lil mala i ñel mbooloo mi ne àndahoo naka moom saara mujj na tilmisan di ab elew maanaam salim daal dig loolu ci cartable bi mu yore ndax ci dëgg-dëgg daanaka mën nga ne cartable bi moom ci la ñuy xamee ne kii tàmbali naa jàng école te moom daa bëgg rek ñëpp xam ne moom tàmbali naa dem école
boo delloo ci gannaaw nag nga xoolaat li mu ne woon ba ñuy dem tawajjahnaa ilal madrasati yasiiru fi muqaddamatina salimun jubluwutoon ne salim da leen jiitu njëkk leen ci école ba daa bëgg wax ne noo ngi àndi dem waaye salim mi ngi dox ci sunu kanam jiitu nu ndopp ci gannaaw maanaam cawarte gu salim cawarte ci dem école bi moo tax bi ñuy dem muy ànd ak ñoom waaye mooy nekk ci kanam ñu topp ci gannaaw
taalifan nag al wusul àgg ga ilal madrasati waxshatu salimin ak wéetaayu salim doxooluhu akuk tàbbeem ila saf jëm ci classe ba te ñu bëgg a wax nag dañ àggee ci école ba ak salim na mujjoon wéete amatu wetliku ak nañ duggee ci classe ba waxi ndama wasal naa ba nu àggee ilal madrasati jëm ci école ba
istaxraba yéem na salimun salim kasrata talaamiisi barik donga ya
lakinnahu waaye moom asraxa gaaw na ilaa xaanootil baayi jëm ci butigu jaaykat ba wa mala ate mu feesal jay ba xoo poosam minal mu labbasi ci bonbon ñu wax bonbon su ma axasa topp mu tàmbali yetta la di foye bihaa ca moom xataa xurixa ba fa géef aljara su sonari ba fa saarate mu dox ilaa xurfati saf bii jëm ci saalu kalaasam naxarifaax yi ànd ak ay camaraatam ban àggee ci école ba daal salim daa yéemu lool na élèves yi bare xëy na defe woon na ne école bi du bare ay élèves noonu waaye moom daa daal di gaaw dem ca boutique bu jaaykat ba jënd fa bonbon def ci def ci poosam ba mu fees mu tàmbalee foye nag loolu mu jënd ba ñu fëggee sonnerie bi nag ñu war a jóg daal jëm ca classe ba moom itam mu daal jóg dem ca classe ba ànd ak ay moroomam ak nihaayatu nag yemukaay bi nag dog bi moom moo mujj ci at tawsiyan bi dañ ci wax mushahadatu salimin jàkkaarloog salim xindal istiraxati fa noppalu ga raxbatuhoo ak xememam nga fil xawdati ci dellu ga ilal bayti jëm ci kër ga waaye damaa xorixa ba ñu fëggee jara surraxati sunarib noppalu ga inda saaxati fa waxtu wa alxaashiratu yi aji fukkeel mooy 10 heures kaanat nekkoon na raxbatu zalimin xememuk salim fil baqaay ci des ga mooy ci togg ci école bi xadd baamu fat di doye di nee na bi 10 heures jotee bañ fëgg sonde bi wane ne mënees naa génn noppalu nag ba ci kanam ñu ñëwaat daa fekk salim doyal sëkk ci njàng mi bëggat te toog daanaka dara daal ci école bi wa ma in daqat fëggut asaaxatu montre bi asaaniyata xasharata fukk ak ñaar te mooy midi xataa nafida ba jeex sabruhu mu ñam nga nee na bi midi jot montre bi fëgg midi fukki waxtu ak ñaar fekk na mu doyal sëkk sëkk mënta mu ñett dara dara ak mu ñam jeex na tàkk wa kaana nekkoon na awwala man di aji jëkk ci koo xam ne xaraja génn minal madrasati bàyyi ko ci école ba xaasidan mbir muy aji jublu bayta waalidayhi néegub yaari waajuram xaysu yu shaahidu fa nga xam ne fa lay jàkkaarloog ummahoo ndeyam ja alxas alxasisata ji aji foor ci moom ma ji aji tedd nee na biñ ne daal mënees naa génn ñibbi moom moo njëkk a génn ndax doyam sëkk ci école bi mu daal di gaaw dëgmal kër ñaari waajuram ndax bu demee daal di gis yaayam yi nga xam ne da koo fonk lool fal madrasatu école bi mahma kaanat ak lu man di nekk xiimatuha wëlëram fa innaha naka moom daal laa taqumu du mën a taxaw maqaama ummihi taxawaayu yaayam walam tutliqa te du boyal te du bàyyee la ñel ko xorriyataho liberté am ba liberté allati liberté ga nga xam ne laa yarda du gërëm badilan jan aji wooti xan xaa walis ko école bi moom nee na ak lu mu am am njëriñ ak wëlër woo ko man di jox sali moom école mënta taxaw taxawaay yaayam ak lu école am njëriñ rek moom yaayam ak ko gënal te it liberté bi ko yaayam di may lu ko neex def mënu koo am ci école bi te moom daa bëgg lool liberté boppam bëgg rek moom boppam te loolu nag mënta am ci école bi. shiraa'ul kutub jënd ay téere laaixatul kutubi listub téere ya fii bad'i kulli sanatin ci njëlbeenu mépp at madrasiyatin mi ko jóg école wala nga ne muy scolaire tata baddalu dana soppiku kutubu naa suñuy téere njëlbeenu année scolaire bu ne téere ni jàng du bokk ak yan yoroon ca la ko jiitu waaw rek njëlbeenu at mu ne suñuy téere war a soppiku ñu wut yeneen yu bokkut ak yan yoroon tax taaru dana tànn lanaa ñeel nu idaaratul madrasati direction bu école bi afdalal kutubi ngeen ji téere ya almudir mooy directeur liggéeyam nag mooy idaara koy wax direction maanaam bureau directeur bi ñoo nañu tànnal téere yi nga xam ne moo gën ci noonu yaktubu dana bind almuallimu maître bi asma al kutubi turi téere ya xalal lawxi ca tableau ba al aswadi bi aji ñuul nan xuluhaa dana nu leen koppi muy daanu leen bindaat xalaa laayihatin ci ab liste xaasatin bi spécial naktub dana nu bind alayha ci liste boobu maa lépp loo xam ne naxtaaju dana nu aajowoo ilahi jëm ci moom min dafaatire ci ay kaye wa aqlaamin ak ay stylo wa xëyri zalik ak lu dul loolee min adawaatil madrasati ci jumtukaayi école maître bi day jël turi téere yi bind ko ci tableau bi élève bu ñëw nag xool lam bind nga koppi ko def ko liste su ko defee nag liste boobu boo demee seet la nga ci aajowoo bu dee ay kaye bu dee stylo bu dee yeneen jumtukaay jumtukaay école ñu wutal la ko war tax mu teg ci uqaddimu danaa jox ba danaa présenté allah ayxata liste ba ila walidi jëm ci sama baay yeddu xamoon ni dana ma woo li murafaqatihi ngir àndanteeg moom ila suuqi jëm ca marché ba ma joxee liste bi saa baay damay wax ne ma nan dem ca marché ba ma seetal la téere yooyu ak jumtukaay yooyu almakatibu jaayukaayu téere yi tuqsamu def na séddale almakaatibu jaayukaayu téere yi ilaa xismayni jëm ci ñaari xaaj man nga ne librairie ba tey librairie ba tey daañu ko wax xismul ab xaaj yabi boobu dana jaay al kutuba téere ya al qadimata yi aji yàgg wal xismu xaaj ba al aaxaru ba ca des yabi boobu dana jaay al kutuba téere ya al jadidata yi aji yees librairie yi maanaam jaayukaayu téere yi dañuy def ñaari xaaj am na ci xaaj boo xam ne téere yu màggat ya la ñuy jaay am na ci xaaj boo xam ne téere yu yees yi la ñuy jaay al makaatibu lii mooy librairie yi al qadimati aji yàgg naqsidu danoon jublu al makaatiba librairie allati ya nga xam ne tabiixu danañu jaay al kutuba téere ya al qadimata yi aji màggat xobban ngir sopp bi tawfiiri ci sakkantal najidu danañu fekk fii xaa ci ñoom kasiran lu bari minal kutubi ci ay téere al mubaasalati ya duñ tasaare ya duñ salfaañe takkoon danañu nekk murattabatan di luñu toftale mooy dinañu jekkal ñu tegaloo fii baadil makaati bi ci lenn ci librairie yi waf xan ci ak dëppoo lil maddati ñeel matière ba wa safi ak classe ba wala yi sa waf xan waaye du nekk di ak dëppoo li naw xin ñeel façon waaxid bu di benn minal kutubi ci ay téere li xillati adadiha ngir néewug seeni lim ngir néewug seen lim jaayukaay yi nga xam ne ñuy jaay téere yu màggat yi moom buñ fa dee dem itam bëgg a sakkanal rek maanaam bëgg a boo demee ci nag ci librairie yi nga xam ne jaay téere yu màggat yi moom ngay gis téere yu bëree bëri yu ñu salfaañe mën na am nag nga fekk yenn jaayukaay yu mel noonu ñu jël yenn téere yi bokk benn matière ni ki bu fekkee téere yi jàngale grammaire naxu mbaa yi jàngale geneen wàll ak téere yi bokk benn classe nga xam ne classe sàngam ñoo koy soxla maanaam yooyu moom ñu tegale leen ñu ànd waaye li ci ëpp lu ñu def rek façon téere bokk bu ne ñu bere ko moom dong mel na ne daal duñ ko faral def ñoom ñi jaay téere yu màggat yi na ji du danoon fekk fil makaati bi ci librairie yi alqadimat yi aji màggat kasiran lu bari minat taalibaati ci ay étudiante wa tullaa bi ak ay étudiant jaayukaay téere yi nga xam ne dañuy jaay téere yu màggat yi boo fa demee da nga fa fekk ay élèves maanaam ay étudiants yu góor ak yeneen yu jigéen ñu nekk fa xismun xaaj min hum ci ñoom yab yom dana jaay maa la nga xam ne la day yi nekk na fa moom min kutubin ci ay téere xadimat ñu aji màggat wa xismun ab xaaj aaxaru baneen yu saawi mu dana waxaale li shiraay kutubin ngir jënd ay téere jadidat ñu aji yees jaaykaayu téere yi nga xam ne yu màggat la ñuy jaay boo fa demee boo fa demee li ci ëpp da nga fa fekk ay étudiants yu góor ak yeneen yu jigéen am na ci ñoo xam ne dañoo yoroon téere yu màggat bëgg koo jaay waajoo jëyee di borom librairie ba.
am ñeneen nag ñuy waxaale bëgg a jënd ay téere yu ñu soxla
daf xadu def na ñàkk moo zamul kutubi li ëpp ci téere yi al marobati ye duñu xemem minal makaati bi ci librairie yi al qadimati yi aji màggat fil ayaami ca fan ya al ula yu jëkk min fatxil madaris yi ci ubbi école yi fan yi njëkk ci ubbi teg école boo demee ci librairie yi nga xam ne téere yu màggat la ñuy jaay li ci ëpp téere yi nga soxla doo ko fekk téere yi bëgg yëpp daal daanaka néewaana nga fekk ko al makaatibu librairie yi al jadidati aji yees ci la ñuy bëgg a wax xindama laa najidu ba nga xameen duñu fekk al kutuba téere ya allati ya nga xam ne naxtaaju dana aajowoo ilayha jëm ci ñoom fil makaatibi ci jaayukaay yi librairie yi al qadimati aji màggat naqsif danoonu jublu al makaatiba librairie al jadidatay aji yees najidu danoonu fekk min kuli naw hin ci bépp façon minal kutu bi ci téere yi xadaran ab lim waafiran bi aji low mooy buy aji bare mun demee ci librairie yi nga xam ne dañuy jaay téere yu màggat te fekkunu fa lan bëggoon ci ay téere dañu daal dem ci librairie yu yees yi nga xam ne ñoom daanaka façon téere boo bëgg rek ma nga fa bari fa lool lool yujibuna dana nu tontu albaayu aji jaay ja ila talabina jëm ci sunu càkkuteef fawran ci lu gaaw laa najudu duñu fekk al isdihaama buux buux looga ashadida gi aji tar laa nu saawimu duñu waxaale it xalaa tamanil kutubi ci njëguk téere yakkoon day nekk rek asiyaru prix ba mooy njëgga max doo dandi lu ñu fixé nabataaxu dana nu jënd jami xamaa mboolem la nga xam ne ndax taaju danoon aajowoo ilay jëm ci moom daf xatan ci aw yoon waaxidatun bu di benn minal makkaati bi ci librairie yi al jadidati aji yees soo demee ci jaayukaayu téere yi yees yi moom téere bu bëgg rek am na fa daanaka benn du manqué te it boo ko soxlaa ñu jaay la ko fi saasa doo fekk ñuy buuxante mbaa dara li ko xaw a yàq nag mooy amul waxaale da ngay fekk rek ba ñu fixé prix ba xam ne ngay xool la muy jar rek nga fay ko dem waaye amul waxaale su ko defee nag luñ ci bëgg daal koy jënd fi saasa saasa benn yoon daal di dem ashioru waxibbu danaa sopp alkutuba téere ya al jadidata yi aji yees arxabu danaa xemmem fii shiraiha ci seenu jënd ak raxu danaa sit alkutuba téere ya alqadimata yi aji màggat li annaha ngir naka ñoom tàkkoon danañu nekk mu la taxatan di lu ñu taqal du xibri ci lànkar daa mooy lànkar aw raaquxaa seeni kayit tam mu ma saqatun lu ñu xottite lay doon laakin na ni waaye man ashtariha dinaa leen jënd mahabbatan ngir sopp bi taw fii ci sakkantal xalaa walidi ci sama baay nee na man téere yi yees yi moom moom laa bëgg lool su ma sañoon moom laay jënd téere yi màggat yi moom xamim ma leen ndax li ci ëpp dañuy taq xeetu lànkar ak yu bindantu ca wet yaag yenn kayit yi xotti kook yu mel noonu soo gisee mu jënd leen daal bëgg a sakkanal poosuf sama baay rek maanaam bañ sama baay fay lu bari loolu daal rek laa ciy bëgg waaye yooyu téere moom taxul ma taamu leen ak taw si nag moom tam xiidun li ak lal taayal la mataakaana kañ la amoon dalika loolu fii matlaay hadihi sanati ci njëlbeenu mi li at al madrasiyati mi ko ju école wala mi wala mi scolaire xamaltu yóbbu woon naa jëloon naa laayihatul kutubi listu téere wa tawajjahtu te ma jublu bi suxbati ax yi ànd ak àndaalik saa mbokk ilal makaati bi jëm ci librairie yi li shiraima ngir jënd la nga xam ne ah taaju danaa aajowoo ilay jëm ci moom min adawaatin ci ay jumtukaay madrasiyat ni ko jóg école ana scolaire bi nu nekk dama jëloon listu téere yi ànd ak saa mbokk demoon ci jaayukaay yi bëgg a seet li ma war a jënd lépp ma jënd ko ci xeeti jumtukaay yu aju ci école awalan adzahabu dem nga ilal maktabati alqadimati maada shahatta lan nga jàkkaar lool ak intitaaruka sa négandiko wala ma kuntu ba ma nekkee uhibbu di sopp al iqtisaada économiser mooy sakkantal wala uridu te duma bëgg izhaaja walidi xatal saa baay bi mapali bii ci samay càkkuteef al kathirati aji bari faxad faxad tawajjahtu jublu naa ila maktabatin jëm ci ab librairie qadimatin bi aji màggat li shiraay kutubi ngir jënd samay téere walakin waaye annaa lii fu may ñeele an ukallima ma wàqanteeg saaxibal maktabati boroom librairie bi wa atlubu te may sàkku ilayhi jëm ci moom maa urid li ma bëgg mu ne bi mu bëggee sakkantal poosu saa baay bañ koo teg ay tegandaay yu bare bari looloo tax ma ne naa dem ci jaayukaayu téere yu màggat yi ndax jënd ay téere mu ne waaye man xaw ma du may waxanteeg borom jaayukaay boobu laaj ko li ma bëgg ndax faqad tajammaa dajaloona fii maxzanihi ci magasin ba xadadul ab lim kabirun bi aji bari mooy lim bu rëy minat taalibaati ci ay étudiante wa tullaabi ak ay étudiant yas aloona xoo danañu ko laaj xan kutubihim wali seeni téere fa yatawajjahu te muy jublu ilaa kawmaatin jëm ci ay jal minal kutubi ci ay téere al mubaaxarat yéen ñu tasaare xunaa fii wa xunaaka ak foofee yebbaxa su mi ngi gëstu xan mataalibil mustarina walis càkkuteef yi way jënd yi suma yaxmawdu topp mu dellu si imma bi xuffay xunaynin benn mu ànd ak ñaari bëti xunaynin maanaam benn mu ànd ak loxoy kese rek aw xaamilan wala muy aj yore kutuban ay téere xadimatan yu aji màggat ak looy lekk na ak daxru jamono alayha ci ñoom wa sharibate mu naan waxinoo téere yu màggat nga xam ne jamono ji lekk na ci naan ci mooy rek téere yu màggat a màggat yoo xam ne kenn xamul kañ la dane woon dama bëggoon sakkanal poos sama baay tax ma demoon ci librairie bu màggat waaye dama fekk waaye jafay jaay moom sàllaa sàllaa goo xam ne maanaam tabja tabja goo xam ne doy na waar ndax mbooloo mu bari ci ay étudiant ñenn ñuy góor ñenn ñuy jigéen dañ ko wër kenn ku nekk naa ko seetal ma téere sàngam téere yi muy jaay dafa def ay jal yu rëy rëy salfaañoo yi nekk fii yi nekk fee bu ko kenn ne wut xoolal ma téere sàngam mën naa dem ci téere yu salfaañoo di seet di seet ba yàgg mu ñëwaat du indi dara ne ko gisuma ko mbaa mu indi téere yu màggata màggat yoo xam ne daal kenn xamul kañ la mooy akala dahru xaleha wa sharib téere yu màggata màggat kenn xamul kañ la wa indama yuqaddimu ba muy présenté alkitaaba téere ba ila tullaa bi jëm ci étudiants yi waxtu yi jox ab téere étudiants yi yaf xasufoo dana ko seetaat xawulaay ñi jayidan bu baax a baax tumma yastafsiroona topp danañu laaj min hu ci waa ji anit sama ni waris njëgg watab dawu tey commencé musaa wamatun ak waxaale tawilatun buy aji yàgg nee na bu indee benn téere ne benn étudiant bii di nga ma doon laaj mi ngi nii faaw étudiant boobu wala bindee mbooloo kum ci mën doon faaw dana laaj boo xam téere bi waaw loo koy jaayee tàmbalee waxaale ak waaja waxaale wu yàgg yàgg baada waqtin ci gannaaw waxtu tawilin wu yàgg aqbala dëgmal si na dawri sama tuur fa baxastu te ma gëstu xan kutub yi wali samay téere falam ajit xaate fekkuma leen xam nga dane woon ba mu agsee ca jaayukaay ba daa fekk donga yi bëgg a jënd ay téere bari lool mënta wax ak ki nga xam ne mooy jaay téere yi mu ne nag gannaaw dir bu yàgg-yàgg ma tuur agsi waaye ma seet seet téere yi mu bëgg a jënd awma ko kon saalisan nag dañu weesoon mooy taaniyan musaawamaatu taalibaati wa tullaab waxaale yi étudiante yeeg étudiants yi ak al intizaaru ak tawil ak dawru ko sa tuur yooyu moo nekkoon foofu fii nag moom saalisan al dhahabu dem nga ilal maktabati al jadidati al xusulu ala matalibi dem na ci jaayukaay yu màggat yi amul lam bëggoon léegi nag day bëgg wax ni ñëw ci jaayukaay yu yees yi li mu bëgg lépp mu daal koy am
tawajjahtu dëgmal naa hinda isim ci waxtu woowee ilaa maktabati dem ci ab librairie jadid bi aji yees fa sallamtu ma jébbal laayihatal kutubi listub téere ya ilal baaxi jëm ci aji jaay ja wa bi aqal la ci lu yées min daqiqatay ni ci ñaari minute naawala nii jot li na ma maa urudu la ma bëgg daalika loolu boo ko gisee mooy ànd na jamihal kutubi naka mboolem téere ya xindahoo fa moom murattabatun lu ñu rajsale la waf xan ci ak dëppoo li naw xihaa ñeel seen façon wa darajaatiha ak seen degré fii xasaay na ci ay armoil xadisat ñu aji moderne walakin ni waaye man nag muqaab muqaabila dalika day mel day firi aji tolloog loolee man nga ne muqaabila dalika aji yamoonteeg loolee maanaam naqattuhu fay naa ko tamanan njëg baaxisan buy aji seer dama daal dem nee na ca librairie bu yees ba jox ko listu téere yi jox jaaykat ba listu téere yi lu matul ñaari minute rek mu daal may jot li téere yi ma soxla yépp li ko waral mooy jaayukaay yees yi moom téere yu nekk dañ leen di féetale fa ñu féete seet façon ba ak degré yépp def leen ci armoire yoo xam ne yu moderne la mu ne waaye nag noonu sama aajo gaaw a fajo day noonu laa faye njëggu seer a seer li ci mujj nag mooy an nihaayatu yemukaay bi ma ana yan xiyee ñoom te am mulaatu ko ñoo di say te am mulaatu ko ñoo di say seetantal wa taman niyaatu ko ak say mbét anaa man laa ashuk du ma sikki sàkk bi àndi ci naka man
alxaqtu sonal naa jayba walidi poosub saa baay di samañal kutubi ci njëgug téere ya walakin ni waaye man muqaabila zalika tolloog loolee sa u sa uxaafidu xasat na maa sàmmonte alayha ci téere yooyu li ab yaxaxaa ngir ma jaayaat leen fi aaxiri sanati ci mujjug at ma ilaa rifaax yi jëm ci samay camarade dane wóor na ma ne moom sonal naa saa bàyyi ci mu jënd téere yoo ci njëg gu seer waaye fas naa yéen dama koy toppatoo bu baax ba nga xamee ne su déwénee fekk ma weesu leen danaa ko mën a jaayee te njëg gu baax a baax sama borom ci toll dinaa leen ko mën a jaay ba noppi jaay leen ko njëg gu baax fil madrasati ca école ba mu jëkkee mawqihuha palaasam taqahu dana tàbbi mooy dana nekk al madrasatu école ba fi makaanin ci ab place baidin bi aji sori xanit dawda i walis coow tuxeetu dana wër bihaa ci moom alxadaaiqu jardin ya alxannaaw yi